Siteu ak Modou Lo mhm. dinaa la wax kii daan mhm. ak nan koy daanee mhm. ak na muy demee lépp lépp ci combat bi te dara dara dara du ci du doon loo xam luy kii la incha allah dagg leen image yaa ngi te lépp ci seet nga ko teg lépp ci seet laa ko teg nag seet am na ginnaaw bi leen nuyu ziar leen yéen ñu faral seetaan Vision TV te ñu dalal Abdou Aziz jaamu Serigne Touba mu nekk xam ñu bëri xam nañ ko bu baax baax dinañ waxtaan ci actualité dinañ waxtaan ci li muy liggéey dinañ waxtaan ci benn combat boo xamante ne woo nañ ko depuis dem pour seetloo ko ko tey bu ñu woon ne seetal nañu combat bi parce que combat combat boo xamante ne ñu bëri ñu ngi ko bàyyi xel euh, diggante Siteu ak Modou Lo ñëpp ne woon combat bi warul mën a nekk waaye nag dafa mel ni Modou ñu bëri jàpp na ne dafa daw tafaatin daw rërëg daw Sa Thiès dem jël Siteu mi xamante ni euh, ku xam Sa Thiès xam ne daan na Siteu euh, ku xam kii ñuy wax tafaatin xam ne daan na champion yëpp ñëpp ne woon combat am ak Modou Lo moo war a taxaw léegi nag kombaa boobu taxawul moom tafaatin jël na Balla Gaye 2 dem na jël Modou ba xam daf ko talal loxo pour may ko chance lépp nañ ci waxtaan bi mu seetalee combat bi lan la ci gis dinañ ci waxtaan woo nañ ko bosoon nag pour ñu defal ñu seet waxtaan lu bëree bari lu yaatu ci combat bi Abdoul Aziz maa ngi lay ziar. waa kay yaram maa ngi delloo ziar bu di ñaan sunu kàddu fekk ñëpp ci jàmm ci barke borom Touba. am na solo macha allah. Euh, macha allah ginnaaw ba la woowe jafe woon na pour nu jot la. jot nañ la pour mbirum seet parce que ñu bëri xam nañ la ci seet depuis ngay jeune ba léegi. Mm. donte sax yaa ngi ko doon daw. Mm-hmm. mais nag euh, bi ñu seetalee combat bi tey bëgg naa ñu waxtaan ci lu xóot parce que ñu bëri dañoo jàppoon ne Modou Lo warul mën a bëri ak Siteu parce que mbokk lan mm-hmm. ñu bari jàpp ne Modou Lo war naa mën a bëri ak Tapha waaye jëlul Tapha Tine dem na jël Siteu lan moo ko waral lépp nañ ci waxtaan nag nga gisee euh, combat diggante Modou Lo ak Siteu waaw combat bi xool nañu ko mm-hmm. xool ngeen ko am na ay fan si Modou yoo xam ni woo nañu pour ñu seet ko pour ngeen xool combat bi ñu xool combat bi uh-huh. ba tey li ma lay wax mooy man bëgguma woon a euh, xuus ci wàllu euh, réseaux sociaux wala ci wàllu wax dara ci ci seet. Hmm. ndax dama ko daan daw te dama koy bañ. dama koy bañ te euh, nit ñi ñu bari ku nekk sa xel fa ngay xalaatee te àdduna dem te demeewul noonu ci man. Hmm. mais bi ma xoolee combat bi Modou Lo ak Siteu li ma gis mooy. Hmm. Modou Lo ci boppam. mën na cee perte attends combat bi woo na la pour nga xoolal ñu ko nga ni Modou mën na si jaaree pour perte roi bi. Mhm. ndax dina yomb Modou Lo fi mu jaar ku xam Modou Lo xam ne daan na Boy Niang. waaw xam Modou Lo xam ne daan na Ama Baldé xam Modou Lo xam ne daan na Eumeu Sène daan ay champion ku xool digganteem ak Siteu seen palmarès si bokkul Siteu gis na ne daanaka ñoom daal ñëpp ay xale lan wala sax ay mag yoo xam ne dafa niir ak ñoom nga ne roi bi Modou Lo mën na ko ci perte. waa mën na ko ci perte. Mhm. ndaxte booy dee xool ci biir sax Modou boo dee xool Siteu la ko gën a yéene. Siteu la gën a yéene combat. waaw mais nag du doon loo xamante ne luy yomb ci Siteu la. mais attends kon li nga wax dafay mel dafay dëggal comme gars yi li ñuy wax ne Modou loo euh, moom euh, bëggul woon bëri ak tafaatin Tine wala ku mel ni Lac de waaye dafa bëggoon bëri ak xale yi ku mel ni Siteu. kon mhm. boo nee Siteu la ko gën a yéene kon ñu bëri dañuy jàpp ne la ngay wax. waaw mais nag. Uh-huh. du ma ni Siteu day daan Modou loo ndax mhm. boo dee xool Siteu bu defee li ko war bu jugee ci boppam dëgg. Mhm. ci lay doog a mën a daan Modou Lo ndax Modou neexul du koo xam ni da ngay ñëw rek. daan ko ci côté yëpp nag. Mm-hmm. ndax borom gàllaaj la macha allah. Mm-hmm. te it mën na li muy def. Mm-hmm. moo tax pour nga ñëw rek exactement moom Siteu mën na daaneel mu Lo ci lu yomb. loolu moom liggéey lay laaj. attends balaa ñuy continuer. Abdou Aziz depuis ngay nekk xale ñu bëri xam la ci seet. nga dem benn instant nga pose seet seetatoo. nga dem ba commencé nekkaat mag continuer sa seet kon ñu ko doon seetee. mbirum seet yan façon seet ngay seet balaa ñuy continuer ci combat bi parce que li ñu ci war a waxtaan ci combat bi dafa bëri. waaw xam nga man yàgg naa di jàng asraar te it mm-hmm. yàgg naa ko di ko def te yàgg naa di ko man te nit xamewuma ko mm-hmm. ndax adduna euh, euh, moo doy waar waaye yàlla mooy dogal bu demee ba dara war a jot nga war koo def rek foofu la ko yàlla dogale mm-hmm. comme tey yow la yàlla dogal ñu defandoo ko man ak yow tubarkàlla mais man seet gi may seet da nga may yónnee sa tur ak sa turu yaay boo ma ko yónnee diggante boobu parce que seet lenn rek la benn seet gi ma jàpp ni moo wér ci man mooy adat tur ki turu nit ki nga jox ma sa tur ak sa turu yaay dinaa la wax bis bi nga judd dinaa la wax ban couleur nga war a sol dinaa la wax lan mooy sa sarax te bu fekkente ne sax ah, kii na mën naa la wax jour bi nga xam ni ci ngay génn àddina te loolu lépp seet da koy waral mais attends yow mi nga xam ne dangaa ragal sa xarit dalaa liggéey nga ciy sikki sàkk soo bañee ma wax la ko bu ma seetloo ndax dama lay tuddal tur nga ne seet maanaam képp koo xam dafa la liggéey da nga tuddal turam barki sëñ Tuubaa dama lay tuddal turam maanaam nit ku la mën di liggéey ak ku mu mën a doon lu mu la mën a jege. da ngay ko seetee tuddal la turam. tuddal la turam incha allah. Eh, am solo bu ñu jógee ci lool. Mhm. mbirum seet nu gis ne Modou Lo dafa dafa gëmoon xërëm. Mhm. ñu dem benn instant Modou Lo xaw ko wàññi. Mhm. ñu bëri ne Modou Lo amatul galaaj gëmatul galaaj. diggante bi ak Siteu. ndax Siteu du ko dominer ci mbirum galaaj. non Modou gis nga galaaj. du ñëw ci làmb takk ba fees. lay daan mbër. mën naa sax bañu ñëw ci làmb ji. bu kenn naagu ci ni kii amul gàllaaj du ma wuti gàllaaj hmm. ba tax yow nga ñëw woyefal sa combat jàpp ni doole kese nga war a indi hmm. nit mën naa na ba toll nu ko neex te bu ñëwee ñu daan ko te parce que hmm. xel la ak gàllaaj kase kese loolu rek mooy bëri bu ñu jógee foofu ñu bëri xamoon la ci mbirum noob noob nekk loo xam te ni lu am am solo la parfois nga sa relation yu bëri dafay gaaw a tas te kenn du comprendre lan moo ko tas mbirum noob lan nga ciy liggéey man gi may liggéey su fekkente ni defal naa la ko. Mhm. vingt quatre heures ci lay mat nga gis mhm. résultat. xam nga damay jàllale fa jàllale waale foofu benn message. parce mhm. que nit ñi dañoo dañoo dañoo dañoo découragé ci sëriñ. parce que li taa ñu découragé ci sëriñ mooy dañoo jàpp ni sëriñ amatul. xam nga kan laa gën a yàkkamti mu ñëw ni ma noobal ma. kan la bugguma ki yàkkamtiwu ma sax ki nga xam ne mi ngi doog a ñëw. mais ki ma gën a yàkkamti mooy ki nga xam ne daa wër ba sonn. gisut nopp wala mu jàpp ne amut mhm. euh, barki Seex Ahmadul Xadimi vingt quatre heures nga gis résultat incha allah. nga gis résultat incha allah. am na solo bu ñu jógee ci loolu. mais nag uh-huh. danaa lancer benn message parce que dafa am lu lu amaale ci wàllu ñaan. lan la d' accord da gis nit ki ñëw di ñaan lu si. Mhm. bu ñëwee di ñaan lu si li muy njëkk a xalaat mooy bu ma gisul résultat wala nangam ak am te ñaan du loolu. Mhm. yow parce que xolay ñaan waaye tamit xol mooy nangu. Mhm. parce que yow mii ñaan lu si amal ngëm-ngëmu kii li ma koy li ma koy defloo mën na ma ko defal. Mhm. parce que dafa am benn mag moo xam ni bu ma ko tuddoon ñu bari xam ko waaye bàyyi ma joxe ci misaal. Mhm. dafa amoon benn waaye boo xam ni daf ni day ñaan. am benn jigéen bu ñëw ni ko man de damaa bëgg sama wujj wi faatu. te kim ñëw di ko wax moom xamul dara. mais dañu ko nangam nga may fay ndaw si d'accord mu ne ko suba ñëwal ma jox la li nga euh, euh, xam ne moom laa lay jox. bi ndaw si ñëwee mu yëkkati fuddan jox ko xam nga ni fuddan jàpp naa ne warul warul mën a rey kenn mhm. ni ko def ko ci lu muy lekk mhm. bi mu ko defee ci lu muy lekk mhm. bi mu xëyee fekk kooku gaañu léegi sëriñ bi nga xam ne moom moo doon ñaan daal di jaaxle ci boppam daal di mais man kii li ma ko jox doonul lu war a mën a rey nit kon lan moo tax mu gaañu xaaral ma dem laajte ko ñëw ci kilifa gu mag laaj ko ko kilifa kilifa gi ni ko xanaa dalaa weexal mu ne ko ah mu ne ko weexal gaa tax ak ngëm-ngëm ka ak ngëm-ngëm waaw gëm-gëm mooy lépp nit boo gëmee ne man na laa ñaanal rek bu tibbee suuf jox la rek man naa kii. am na solo hmm. ci loolu ci la ñu profité ci mbirum sangat mbirum hmm. kaaraange ku ne xam na ne Modou bu demee ci làmb parfois euh, moom li muy sangoo ndox mu weex lay doon maanaam ndox mu sat wicc hmm. du taq dara. ñu gis ne Siteu dafay takkoo ba diis comme ni Modou Lô daan takkoo parce que bëgg naa sax ñu xuus ci yeneen combat yi lu mel ni Balla Gaye Tapha Tine bëgg naa ñu xuus ci euh, lépp tuuti nañ ci waxtaan mais mbirum kaaraange lan mooy aar aadama ak mm. kaaraange lan lay jëriñ ci doomu aadama. waaw xam nga kaaraange. Mm-hmm. Euh, ñu bari Sénégal amuñu ko. amuñu ko ñi sangoo bayre te kaara amuñu kaaraange moo ëpp. parce que nit ku nekk war ngaa am jaaro boo xam ni kaaraange doon. jaaro mm-hmm. nit ku nekk war ngaa am sangat yoo xam ni xanaa xamoon ni nit ñun ñi rek maanaam comme euh, Sénégalais yi ñooy xëy rek sangu ndox noonu dem. Mm-hmm. mais bu njëkkoon ak man tamit ñi ma xam. du nu xëy mukk te sangu woon saafara. am ñoo xam ne ay kilifa lañ seen i biir kat bàcc lan fa def di fa sangu. Hmm. kon kilifa yi nekkul ak neen kese dañuy génne noonu. sëñ sëñ moo ne woon. Hmm. Euh, ku dul takk doo tekki dara. Hmm. Ah? kon loolu nan ko bàyyi xel te xam ni nit ku nekk daa war a sangu bu leen jàpp ni ñaan amatul am na. da di jàpp ni am nañu ko man am nañu ko mënul. te ñi ko mënul ñoo ëpp ñi ko man tey ñi ko man sax mën nanoo bëri waaye yow mi ñaanlu seet ngëm-ngëm nga nga war a am pour nit ki ñaanal la nga nangu indaale woo ko mhm. te ki lay ñaanal tamit euh, am na ku façon comportement yoo xam bu ko comporté woo rek di nga xam ne kii war na laa mën a ñaanal warul a ñaanal am na solo moo tax ni sangu tey wut kaaraange mhm. di aar suñu bopp mhm. am na solo euh, dañuy continuer ak yow ba tey ginnaaw bi nga waxee ci mbirum kaaraange kaaraange nag lu am solo rawat na askan wi fi ñu toll rawat na ndaw yi aussi fi ñu toll euh, bu ñu jógee ci lool dañuy gis ne it yaa ngi yëngu ci mbirum bayra mbirum samp doomu aadama balaa ma ñëw ci samp doomu aadama nag bëgg naa ñu waxtaan tuuti ci benn combat boo xam ne ginnaaw bi Modou Lo jëlee Siteu. Balla Gaye mi daanoon Modou Lo gay mi xamante ne nii Siteu soxla woon na ko bëriwul ak moom. moom dafa dem jël Tapha Tine mi xamante ne nii Modou la soxla woon. Mm-hmm. combat diggante Tapha Tine ak Balla Gaye naka nga jisee combat boobu. waaw combat boobu du ma ci wax. waaye damay bàyyi ba mu jub nga ñëw ma wax la kii daal bu gën a jege daal di ñu wax kuy daal ma wax la kii daal eh, am na solo ko mooy Abdou Aziz nañ ci gën a xuus ak moom beneen hmm. combat bi Sa ak eh, kii ñuy wax Eumeu Sène mi xam moo daanoon Balla Gaye waaw combat boobu tamit hmm. euh, lu ma bett la hmm. mais tamit combat bu doy war la parce que combat boobu du yomb te mystique dëgg moo ciy génne Sa Thiès mystique mystique ci génne Sa Thiès mystique dëgg parce que jamono jii nii ma doonul ko xam ni lu ko lu koy daan day yomb. Mhm. parce que même bu dul côté làmb fi mu jugee ak li mu waajuwaatee. Mhm. bu saacee su waajul dëgg-dëgg gaw ma mu mën a daan. Eumeu Sène Eumeu Sène am na solo bi loolu amee ñu continuer ci yow tuuti parce que dañuy gis parfois ñu bëri bëri mbiri feebar yi sonal leen lu mel ni ngóora. Mhm. daf leen di sonal lool. émorite ndoxum siti ballonnement lan nga ciy liggéey. bu fekkente ni wàllu ngóora man pommade bi ma lay jox. billahi lazi laa ilaha laa ilaha illa huwa boo ko diwoo boo amoon quatre-vingts ans sax da ngay mën a sëy da ngay mën a mhm. bu fekkente ni yow daf laa dal ki ko judduwaale nag laa xamul ci moom dara waa ki ko judduwaalewul pomade bi am na traitement bi tamit une semaine la mhm. am na une semaine rek nga wér une semaine mhm. doonu loom ni da nga koy jël mu calmer la loolu ñiy jaay ngóor war na dépasser foofu garabu ngóor mais danga ko jël mu faj la spécial nga xam ne yow dootoo utiliser sax ay produits yoo xam ne da pour pour sa sa wàllu soxna la. Hmm. bu fekkente ni awra bi day dellu. wala nga gis ni bu jógee du yàgg. Hmm. wala nga gis ni boo euh, si keeg sa soxna boo xësee egg ba pare pour nga jugaat day jafe. Hmm. waa ma ñu ñu jëflante ci bu soobee sëñ wax macha allah euh, am na solo trop ci lool maa ngi doon wax sànq mbirum samp doomu aadama. Mhm. ku xam yi ki ni xam ne dañ ko sampoon ci làmb. Mhm. Euh, ku xam Balla Gaye am na ay moment dañ ko sampoon ci làmb. ak mhm. keneen ak keneen ak keneen. mbirum samp doomu aadama ba ci ay politiciens yu bëri ku Macky Sall ñu bëri xam ne dañ ko fee sampoon moo tax 2019 mu jëlaat réew mi. mbirum samp doomu aadama loo ciy liggéey. waaw samp dafa bari ay façon ci yi nga xam ne moom laa ci yor. ban ak ban la. d' accord man am na samp boo xamante ni bu ma la ko defalee. gën lay doon gën waa ci digg kër nga koy nga koy nga comme fi ngay liggéeye mhm. fa ngay gas ba mu xóot nga def ko ci mhm. bu dee digg kër da ngay jël garab bi suul euh, gën gi gas ko bu moo ko liggéey pare nga suul ko ci digg kër gi mhm. jël garab jëmbat fa di ko roose lu garab gi gën di meññ rek say mbir di gën baawaat macha allah ci loolu samp la ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na place yoo ni force boo fa duggee da ngay jënd force moo xam cent franc la moo xam deux cent moo xam million loolu lépp ci ay xeeti xam-xam la yoo ni kenn ku nekk toogeewul ak nin mhm. ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax. macha allah mhm. euh, am na solo ginnaaw bi samp doomu aadama amee mbirum bayra. Mhm. mënul ñàkk ci doomu aadama. mais ñu bëgg naan bayra baax na lool mais bu ànd ak kaaraange moo gën. nan nga ciy liggéey. waa xam nga bayre bi ci njëkk. mooy sa bayre. Euh, yàlla nag euh, mënu laa gis ngay toroxal say say waajur di toroxal sa baay loo am def ko ci sa bopp xëy xëy ni bayre laa bëgg. sëriñ bu lay ñaanal tan naa fekkut. Mm-hmm. dala la wax nga fonk say waajur ba pare doo ko mën a ñaan lu ñu mën laa ñaan gis nga sëñ Tuubaa bu ñu bu njëkkoon boo musaan a ñëw ci moom ni ko damay jébbal danaa la ndax am nga sa ngërëmal waajur mm-hmm. boo ko amul mun la dama wuti ko ba pare nga doo ko ñëwaat kon daf lay leer ne lam daan sol nit ña bala mu ko mën a sol ci yow dëgg faaw nga am sa ngërëmal waajur mm-hmm. bi njëkk ci bayre mooy bayre bi njëkk ci bayre bu ko defee na nga soog sangu ci wàllu bayre ndax bayre bari na ay façon yoo xamante ni tey am na bayre yoo xam bu la ko liggéeyee jigéen moo lay topp force. jigéen ñi nga xam dañu am daraja yow mi nga xam ni yaa nekk sax euh, ci koñ bi di gis ki da nga naa waaye yàmbari mi nii nan la ko mën a toppee. Mm-hmm. bu dee bayre bi ma lay def nit góor jigéen ñëpp ñëpp dañ lay topp. Mm-hmm. li ma yor ci ay xeeti bayre moom ke bu ma ko doon wax fii fii laay fanaan. am na solo lu am solo. Euh, macha Euh, gis nañ ne it jigéen ñu bëri dañu bëgg am jëkkër parfois. daf mhm. leen di jafe góor ñu bëri bëgg am soxna mu jafe leen lool. loolu rab da koy waral. Mhm. te loolu lépp day day tënku ci wàllu seet. ci seet waaw nit bu ñëwee ne la nangam laa bëgg gis nga médecin sax munoo ñëw ne ko sama bopp day métti mu yëkkati garab rek jox la faaw dalay lay xool. da lay consulter waaw. Mhm. comme nit ñaan dafa am ay sart. du ku bëgg ñaan du ku ñaan. dafa am ay sart loo war a jàng loo war a xam la. waaye dama bëgg yow mi nga xam ni yaay ñëw ci ñaankat yow ak ñaankat bi yéen a yem ci yàlla nit la ngay nit mm-hmm. dafa fekk ni yow ni ngay toogee ni yàlla maa ngi lay ñaan nangam mm-hmm. moom am na lu ko gën a gaaw loo am ko defee mën naa ko yàlla mën na la ko may ci lu ci lu gàtt loolu moo wutale mm-hmm. ñaankat ak ki ñan mi ngi noonu léegi rab nag dafay dafay dafay waral lu bari day waral ngay gént di sëy dafay waral aussi euh, ngay toog mhm. sa bopp di métti rab day jàpp ay yaram day jàpp ay tànk waaye dinaa joxe benn secret may leen ko te yàlla tax muy ñen ñi nga xam ni mhm. wàllu rab wàllu tànk yu métti moo leen sonal mhm. da ngeen di jël lii ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax ngeen bind ko boole ko lii ma leen di bëgg a wax ngeen di ko naan loolu day dindi aussi tamit day faj tànk yu métti yow mi nga xam da nga ko am da ngay bind fardu cinquante cinq nan bind nga bind jabbaaru cinquante cinq nga bind zakkooru cinquante cinq bind zawaabu cinquante cinq bindu saqiiru cinquante cinq bindu zakkiyu cinquante cinq nga boole ko xasum ndimb di ko sang di ko naan boo añee boo boo boo re boo xëy boo ndekkee boo añee boo reeree da koy dindi ba mu set incha allahu rabbi am na solo trop euh, fi ñu koy tëjee nag parce que émission bi woon sax bu gudd parce que ama woon jot mhm. woonoon a ba sonn mën a jot ci yow pour mën a wax waaye nag dinaa may ay ay ay ay secret ndax am na ñoo xamante ni mhm. duñ mën a jug pour dem wala ñu am doole bi. mais secret xam naa ci suñu deuxième émission ci lañ koy gën a yaatu da ngaa xër rek mais deuxième émission bi incha allah bëgg nañ cee yaatal. lu yaatu mais fi koy tëjee rek mooy sa mm. jàngat ci réew mi. balaa nga wax ci jàngat réew mi nag mbirum papier aussi am na ñoo xam daf leen di të. daf leen di mm. jafe. Mm. fu ñu fëgg pour am ay papier ñu leen nekkul foofu. Mm-hmm. bu fekkente ne wàllu papier. Mm-hmm. yow mi nga xam ne da ngaa déposé. Mm-hmm. nga yittewoo papier. ci diir bu yàgg barki Cheikh Rafal mu génn. parce que yow fexe maa jox kayit bi nga xam ni maam numéro bi nga xam ne moom lan la jox muy numéro papier bi. Mm-hmm. incha allahu rabbi du lu may bind jox la du lu may def kurus laa koy def. Mm-hmm. balaa mat. Mm-hmm. weer sa kayit dina génn man maa garanté loolu su fekkente ne amul li nga ma joxoon ma dubleel la ko delloowaat ko. am na solo muy wàllu papier. sa jàngat ci réew mi. sama jàngat ci réew mi mooy comme tey euh, man du dugg ci wàllu politique. parce que xamuma ko nit ku nekk li nga xam munoo doon euh, waykat bëgg na ko bëgg nekk mbërum làmm bëgg a nekk théâtre kat loolu faw benn nga ci mën a doon. Mm-hmm. du dëgg bu fekkente ni li nga xam ne moom laa sañ a digal ndaw ñi. Mm-hmm. muy xol bu rafet nu ko nu waay def ba am ko baax na. bu fekkente tamit tamit sañ naa digal ndaw ñi ku ci mën a wut kaaraange ut ko ku ci mën a wut loo xamante ni luy safal sa yaram la pour wàllu am-am ut ko. Mm-hmm. parce que Sénégal gi dafa doon dëkk boobu dafa rëpp. léeg-léeg nga gis nit koo xamante ni day jékki-jékki ñu rey nañ ko ñu ne lu tax ñu rey ko mu ni manifestation te alors que mën na caa bañ a bokk li waral loolu mooy ñàkk kaaraange. Mm-hmm. kon ndaw ñi bu ñu bàyyi suñu bopp. Mm-hmm. dañoo oyofal mbir mais mbir yi du noonu nanu fexee ñu ñu ñu ñu fonkaat suñu bopp. xam mm-hmm. ñooy kan. kenn ku nekk war naa am xam. di sangu jéem a sa bopp di seetlu tey bu yàlla dogalee nga jël sa alal rek dem du seetlu yàlla nar na laa tijjil ay bunti wërsëg yoo xam ni. ci la saw yoon nar a jaare baax am na solo kon ngi ñaan ci doole sëñ Touba liñ bokk bëgg muy ngërëmal sëñ Touba yàlla nañ ko am mm-hmm. di tuub bu baax di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp ci barke borom Touba yàlla defal ñëpp jàmm incha allah macha allah